mouvement social jëriñ sa réew di ab kuréel bu yëngu ci ay ndimbal ñu fas yéene tàmbale seeni ndimbal ci dëkk bu sell bii di Touba jëme ko ci ndongo yi ak daara yi buñ sukkandikoo ci Serigne Fallou Gueye di coordinateur kuréel bi mi ngi àddu ñu xamal. dañoo yi ndax ñun social la liggéey te dañuy liggéeyal yàlla yéen di beeg ak Serigne Touba nga moom lañu yaakaar te Serigne Touba amul leneen lu alxuraan. moo tax ñu ne daara yi la ñuy njëkk dimbale daara yi jënd nañ lu lu lu toll si juróomi téeméeru peru dàll pour xale yi ndax nawet bi ñu mën sol dàll jënd nañ aussi ay bassin yu bëree bëree bëri bëri bëri joxe nañ aussi ay robine lave-mains lu toll si set ba huit robinet lave-mains robinet yoo xam ne cent litres lay def bassin bi cent litres lay def ànd ak robinet ak ay saabu jox nañ leen ko jox nañ aussi ay bassin lépp na dañ ko def rek te yàlla tax def na ko ngir dara ñun politique ñu nag euh, faraluñ kenn ko dul yàlla yéen ci dëkk Sëñ Tuubaa yeneen projet yu bari kuréel bii bëgg na koo taxawal jëmee ko si dëkk bu sell bii di Touba. am nañ yeneen projet yu bëree bëri bëri pour xale yi parce que ñu ngi xool seen côté wér gu yaram ñu ngi koy xool. seen côté aussi euh, jàng métier aussi nuñ koy defee ba jàppale leen ci ay centre de formation yoo xam ne dañuy jàng métier aussi parce que euh, man maa ngi waxtaan ak ay allemand yoo xam ne bëgg nañ see jàpp bu neexee yàlla. def te yàlla tax ak dimbali daara yi ak ndongo daara yi tax kuréel bi sampu. ba sax coordinateur bi di Serigne Fallou Gueye di ñaan ñëpp ñëw jàpp si ngir ndimbal yi gën a yaatu.